kenn ku danga am problème sa problème bi la dal bokkut ak sa problème morom sa problème lu morom kii ñëw ne ko man yonantu bi sama problème lenn la bay rek laa yaakaar ruuj naa uj naa jiw ji naa waaye tool baa ngay yàqu awma ndox taw amut yonantu bi ne ko demal sax ci istixfaar keneen ki ñëw ne ko yonantu bi am naa soxna am naa ay soxna ba léegi gisaguma sama taaw amaguma doom te yàgg naa ci néegab sëy te doom laa bëgg ànd ak alal ju ma leen dundalee yonent bi ne ko demal nga sax ci istixfaar keneen ki ñëw ne ko am naa jiwu ndox am na waaye su ma problème mooy tool laa amut fu ma koy def yonent bi ne ko demal nga sax ci istixfaar ñoom ñoo ñëpp bañ ca saxee ba ñuy gisaat yonantu bi ki bëggoon doom am doom ak alal ki bëggoon tool am ko ki amoon tool tamit am taw yàlla tënk ko ne istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaran yursili sama aleykum midraaran borom taw baa ngoog wa yaj'al lakum maanaam ki eh, ki bëggoon ndox a ngi noog kon yursili sama borom ndox maa ngoog wayum dit kum bi am waalin wa banin ki bëggoon doom ak i alal a ngi noonu wa yaj'al lakum jannatin ki bëggoon ay tool tamit mu ngi noonu kon istixfaar mooy lépp yonent toog boppam dafa wax te ba muy wax sax dafa gëñ yonentu lu mu wax dëgg la waxuma la lu mu gëñ dafa gëñ ne walladi nafsi bi yadihi law lam tusnibu wa tastaghfiru la dahaba laahu bikum wala jaa bi qawmin na yusnibuuna yusnibuuna wa yastaxfiruuna fa yaxfiru lahum buxaari yu yonent bi nee na waat naa ki yore sama bakkan ne su ngeen fi nekkutoon di mooy yàlla di ko jéggalu dana leen fi jëlee andi fi ñu koy mooy di ko jéggalu kon li nga ciy déggee yàlla bañut ko tilim xam nga ki mu bañ ki sanguwut yàlla li bañ mooy ki sanguwut comme léegi tilim mënta ñàkk